laa xawla wala quwata illa bika yaa aliyul azim mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi amaan mbégte dellusiwaat ci seen chaîne Tivaouane 7TV ngeen ànd seeg seen mbokk oustaz Malick Ndiaye ci seen émission bi ci ànd ak yéen moment de ñu siy ànd ak di waxtaan ak yéen lenn ci dund Seydina Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne ñi ngi topp histoire boobu nga xam ne waa Màkka ñi ngi koy dàqatoo ak jafe-jafe yëpp fa am laataa di ko yàlla di ko recevoir ci kaw mbokk yi euh, ñu fàttali la yaa ngi sa buntu buntu chapitre yow mi téere bi yaa ngi ci chapitre onze chapitre onze mooy waxum li it fa yi moom ci lay wax alaaji Maalik de magu Màkka yi bi nga xamee ni dajaloo nenu ñëw ci moom ne ko Abi ak Xadija tee ñu rey la yàlla dégg loolu rek rey Abi Taalib alaaji maa ngi ne bi yàlla déggee loolu rek rey Abi di leen won ni li ngeen yaakaar mooy protéger yonent bi protéger wu yonent bi nit mënu koo protéger kenn mënu ko malaaka sax mënu ko man yàlla moo tax malaaka bi ñu yuuxoo ne yàlla mm, yaa rabbal xalqi ayabqaa nabiyuka maadudan min al yutami yàlla ne leen déedéet laa shakka inna nii xaafizuhu amul benn werante man yàlla maa koy maa koy wattu wa rabbuhu maa koy yar xaw na dinaa ko man sëkk dinaa ko wër dimbali ko xaw na maa koy dimbali fii kaafihi ximami mbooleem lor mbooleem coono mbooleem jàpp mbooleem ay ay mbir yu koy sonal man yàlla fii kaafihi ximami maa koy maa wattu alaaji maa ngi neen bi Abi génnee àdduna wax na la déet wax na sa beneen émission ne Abi Taalib dugg na ci lislaam Abbas ko wax alaaji maa ngi neen ma maa koy jaale xëy suba jaale ko Abi Taalib génn àdduna ñi ngi la koy ñi ngi la koy jaale waaye ñi ngi lay waxal lenn nag ñoo ñooñu dem Abi Taalib gaañu na exemple nga ni lëndi ñu ñëw na Abi Taalib génn àdduna ñu jaale ko ne ko Abi Taalib génn àdduna bu Abi Taalib dem na kon léegi kuñ la ragalee dem na ku la fi rusee moo fi des mooy Xadija bu Xadija demee xamal ni dinañ la attaqué Alaaji Maalik nee na lundi mardi mercredi ba an salaasati ayyaamin Xadijatun xattaw lundi wax nañ ko loolu mu Moustapha ne teg mardi yàlla deful réaction mercredi Alaaji Malick nee na Xadija génnaat xanaa loolu lu ko gën a metti am lundi sa bàyyi tax génnaatu na sa bàyyi tax bi nga xamee ni moom lañ yaakaaroon moo lay dimbali ñu naan déedéet mag-mag kay ne ko sa bàyyi tax bii moo tere yow Xadija ñu dal sa alaaji maalik nee na an salaasati ñetti fan rek ay yaamin ñu teg ay fan xadijatul xadija xattawaa ci la génnee àdduna Maodo nee na zalika nag amal xusnu wal xumami zalika nee na at moomu nag amal xusni atu ñàkkare la wal xumami ak métit alaaji maalik nee na nag affaire yi commencé tar ci côté waaw mii nga xam ni mamaru màkka yi dañoo taxaw rek ne xadija bi bu deewee ñu ñu ñu dal ci kawam kii kan mooy xadija alaaji maa ngi ne bu ñu laajatee xadija da nga daan ala saxihi mooy ki nga xam ne dafa rafetal aqaama taxaw ci inda seydina sunu sang Maodo ñaata at mu ne xamsin wa xishrina quinze ans quinze ans yoo xam ne ahsanal qiyam yi gën gi rafet taxaw ala sax na aqaama sax bu mat sëkk di taxaw inda seydina maanaam tey dangaa ala saxiixi rafetal na aqaama sëyam inda seydina ak seydina Muhammad Xadija moo daan joxe dépense bu joxe dépense jotee Xadija taxaw taxawaayu borom kër su fóot jote Xadija taxaw taxawaayu soxna su togg jotee Xadija taxaw taxawaayu soxna su def lu baax jotee Moustapha war a làmb poosam Xadija làmb poosam jox ko Moustapha Moustapha financé te du ko ñëwul laaj ko ne man maa la jox wala mu si indi benn détail gis na gis na jigéen ju baax ni muy def day làmb poosam di jox borom këram borom këram di def ci kër gi te kenn du yëg ni borom kër gi def ñëpp dañoo defoon Moustapha Khadija jënd na alalam ba euh, héritage bi jox ko yonent bi sallallahu alayhi parce que nee naa la alalu màkka yi boo ko xaajee ñett benn bi ñaari xaaj yi Babacar moo ko moom benn xaaj bi Khadija ko moom beneen xaaj bi waa Màkka séddoo muy nii Ousmane ak ñeneen ña ñeneen ñeneen muy boo boo xaajee muy ñett Ababacar ci ëppale Khadija ci toppale Ousmane ak consort ak yeneen gars yi ñëw Khadija lépp la jël def ko ci turu yonent bi pour yonent bi mooy ko mooy kilifaam sallallahu alayhi wa sallam moom la ko bàyyee moo tax alaaji maa ngi ne ala saxiixi dafa rafetal dafa rafetal taxaw gi nga taxaw aqaama kaama gi mu sëyet inda seydinaa sunu bi am kersa ak yaru Seydi Haaji Maalik ak adëb moo tax utiliser wul baatu zawja mu utiliser baatu aqaamat mooy ko taxawee ala saxiixi sax na dàq di rafetal aqaamat di taxawu di taxawu inda seydina sunu sunu sang bi Maodo ñaata at la ko def mu ne xamsan wa xishirina quinze ans xamsan cinq wa xishirina dix aman ci ay at nee na xamsan wa xishirina sëy nag Moustapha quinze ans waaye nag ma